الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد أغلق والخاتم لما ناصر الحق بالحق المستقيم على ñi ci def saytaane ni ci moom dana muri ñi saytaane nit topp na baneex a bakkanam lekk ak naan ak sëy rek mooy soxlaam bee mu ñiilal roxoom ñiilal xaq yàlla ya ko war yëpp ngir topp baneex ak biitam ak sëyam kooku génn na ci xeeti doomu aadama yéeg na ca bàyyi ma ya te moo gën a bon bàyyi ma ya de ñoom la yàlla wax in ilaa kal an'aami lay wax it ulaa'ika aadama mën naa dem ba ci ci mbindeef yi nit koo xam ne itam ba sama bànneexam meram sabdo waa ak rey ak boom rek mooy bëgg-bëggam mu topp loolu ba nga xam ne sànq naa xaq yàlla yëpp ngir topp meram kooku itam génn na ci doomu adama yi léegi ci xeeti bàyyi ci xeeti gar yi la bokk te moo gën a bon gar yi rek nit ki nga xam ne itam topp na seytaane ba nga xam ne pexem bon ak def lu bon rek naka iblis loolu liggéeyam doo xaq sànq xaq yàlla ci loolu kooku itam génn na ci xeeti doomu aadama mu ngi bokk ci xeeti saytaane yi léegi te moo gën a xiir saytaane yi rek nit ka nga xam nag ne topp na jaamu yàlla ak sikar ak sikar waa ak ñaan yàlla da nga xam ne waa waaw mujj na xam yàlla ni malaaka yi xame yàlla kooku itam génn na ci doomu aadama léegi na ci xeeti malaaka ya da itam moo gën malaaka ya rek noonu la yàlla wax wulaay soom xarul bëreeti doomu aadama moom nangu na yëpp mën naa xiir waa mën naa gën de yàlla ñu yàlla boole ci ña gëm waatoo di keneen ci tawreet ci tawreet fab waa jàng leen ko in kuntum dem na si yoon sax dina di way dëggal indi leen tawreet ñu jàng ko nag te man taraasi duut na maa laa waral yàlla ak kasi benn rek min baadi zalika ca gannaaw loolee walaay ka ñëwee la gaa ñoom asal mu ne ñoom di way fas kon waxal sabaqa laaw dëggal na yàlla ci mbooleem lam solo yàlla wax na dëgg ci lim natt ni de te tabboo toppaleen millata ibrahima diina ibrahima boo nag toppaleen diina yonent yàlla ibrahima ji nga xam ne man ca laa nekk xam ni ñu ngi fan mbir mi mooy aji jàng wala diine ji yàqu jëm ci diine ji ndax ma tax ma tax nekk moom moom Ibrahima mosu gën a jawee bokkaale ñu ak yàlla de yonent yàlla Ibrahima mas a sàkkal yàlla bokkaale rek fu ko yàlla tudd ci alquran fokk mu dàqal ko bokkaale rek dàqalu ko benn jaam nag lu ma moom boo doon ko dugg tawhid de inna awwala baytin wudi'a linnaasi kooku lu ko wasan wàcc na ba nga xamee ne yahudi dañ ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ngay def day sappi sa qibla bàyyi ko ci baytu maqadis di jublu ca kaaba ga te baytu maqadis mooy qibla ji jëkk ci qibla yi mooy qibla yi mboolem yonent yëpp waaw nga dem di jublu waaw makka bàyyi ko waaw loolu baatin la de buur daal dina ne inna awwala baytin naka njël génal néeg wuute ah bopp tëgaleef na ko ci suuf mu di jaamu kaayam yàlla li naa si ñaan nit ñi léeg-léeg fii mu ba nga xam ne di dakkataa yi nekk la mu ca makkaare mboolem ñi ñi ngi ci kaw suuf ñu ngi ci jaamu yàlla buñ jëkk a tëral ñu jaamu kaay mooy kaabag yàlla ga nekk ca makka de bakkatu waaw lu xale ci makka yaaram da nga wocc wecce miim baa tuddee nañ ko bakkatu ndax dafay takku baatu mooy ndogu de pour mënu buut dëkk makka waaw yàlla ko waxalagal boppam de ndax kaaba ga boo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 वहाँ हवा की तरफ कहा होगी सर को खड़े वहाँ में को देखो देखो हज याद सही दम दे नीचे मला कही गया ये बैठी मामूर kooku mooy tabax bu njëkk bi ci kaaba ga gannaaw ga nag aadama ci boppam tabaxaat na ko te sonn moo ngi tabax bu njëkk ba sonn moo ngi kaaba gi nga gis ma nga dem ba ca suuf si juróom ñaareel ko diggante si aadama tabaxee kaaba gi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 diggante bi ñu ko tabaxee ak ba muy tabax Baytul Maqdis mooy ñeneen fukki at kon nag yeneen wax na guddi gën guddoo ca la néegu nguura nguuru Kisra toj ca Faris ni ko ñu ko nettalee woon ca la safara yi nga xam ne ñoom lañ doon jaamu ñoom ñëpp fay ba nga xamee ne juddu na moom yonent nekkoon na ci xaadaay ñooñ makka ku ca xam man-man sa doom du yaroo makka de buñ jiraa seen doom yi dañuy wut ay nampalkat yu dëkk ca taayif ñu di leen nampalal de taayif sorewut ak makka waaye moom dafa sedd jaww ji sedd la am ay garab ay meññet am ay yoon am lu nekk mooy safaanam makka ku ca ama ak jekk sa doom taayif lay namte de fa lay yaroo waa taayif ñi itam baaxoon nañ di ñëw makka di wut doom yi nampale de guddi ga yonent juddoo nag kuram abi taalib ma nga xam ne fa la juddoo fukki doom yi góor juddu nañ ko de fukki jigéen itam bàyyi ko taayif ci des ba ñëw di wut ci doom ji nampal de ku ci ñëw aminatu na la man de xam naa doom waaye daal bàyyam dafa dee ba ma xamee ñaari weer ci dem ndeyam la baayam deele ah ñu ne ñun de jooju doom bëgguñ ko doom ju amut bàyyi ak ku ko nampal soo amee sa weer sax bari na waaye doo am ay neexal de ñu dañuy wut doom joo xam ne bàyyi ma ngay dund di ñu fay di ñu neexal de xam ne ñu nañ bàyyi yëpp wacc fa yonante moom rek alimatu saadiya itam booba ñooñu taayif yi doon wut ci nampal doom yi nampal moo ci gën a ñàkk te wajanu mbaam woo xam ne mën da jote moom la waroon moo tax moromam yi jiitu ko war seeni gëlëm jël doom yaa am bay de moom mu soog a agsi ba mu agsee laajte ne ndax doom nampal xam na fi Aminata ne ko man de am naa doom waaye doom ji bañ laa am ñëpp bañ nañ ko ndax yaa baayam dafa dee ba nga xamee ne am na ñaari weer ci biitam ndeyam de ah mu ne man day rus naa ànd ak samay morom ñoom ñëpp ñoo am doom yi yóbbu man yóbbuwuma kenn kon daal ma yóbbu ko xanaa moo gën a xalam de dal di ñëw ne Aminatu jox ma sa doom ji mu ne ko demal ma nga jënee ko di nelaw Halimatu Saadiya ñëw mun yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko loxoom yonentu xeew muy leer génne ci gémmiñam sur be sëli ci asamaan sa Halimatu di ko gis mu daal di sopp doom ji lool daal di ko fab daal di ko jox weenam mu nam ko ween wa daal di joxe soow bu baax yonentu namp namp wa ci def yonentu bi bañ mun na nax yonent bi bañ ma ngay samp maandu xaat xam na booba ne kii koy nampal am na jeneen doom ju muy nampal te ween yi ñaar lañ kon nag suñ dee ñaar ñoom ñuy namp moom bon ban wenn ween wi la moom rek ba mu nampee wenn ween wa nangu wuta namp ba ca des dugg la jël xaq jaamur rek sallallahu alayhi wa sallam naka ko def waaye néegu te tagoo yonent bi ne ko doom ji lay mat naa feer waaye dama bëgg nga balee ma ko ndax màkka dafa tàng te dafa bëri ay feebar waaw jënt ma rek naan la ko foofu jotaay mu ne ko yóbbul ak israfil dañ ñëwee rek ñuy wër soppe mel ni ay tilli xale ya daal di daw ñoom ñu jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam huwa huwa ñu huwa huwa ñu ne ndax mooma ñu ne mooma mooma tigi ñu daal di ko jibril daal di jinji waaw fii ci saata si rek buntu ubbi di ubbeeku naa ko mu génne xol ba jëlne xol ba lumba nga ci koo xam ne mu ne lumb bi de mooy ci def saytaane ci moom dindi ko raxas xol ba nag ak leer feesal koog ay mbóot ak xam-xam buy jëriñ delluwaat dafa mu nekkoon jibril jiyaat mu daal di xubu mel na meloon yeneen si amu ci benn métite amu ci benn benn yëg ñuy opéré mënuñ loolu ba nga xamee loolu am na nag xitub saytaane bi ne woon ci xolam li tax mu ne ci ak li tax ñu dindi ko su ci nekkutoon kon du doomu aadama ji mat te yonent dañ bëgg mu mat ci wàll bu nekk xataa ak doomu aadama am dafay mat sëkk ba ñu xam ne kii nit ku mat la te lii nekk ci nit ki waaw moo tax mu nekk ci moom la waaye ba nga xamee lumbu boobu ci na saytaane jaar di yàqale képp ku ci yow moom ñu dindil ko ko de moo tax saytaane tiib na moom yonent sallallahu alayhi wa sallam nit ku ne am na malaaka mu koy sawarloo ci lu lu baax ak saytaane su koy teel ci lu bon lu may yonent moom saytaaneem tuub na du ko sant lu may lu baax rek sallallahu alayhi wa sallam jibril ne peese leen ko fukki ci xeetam ñu peese ko fukki ci tane fi xeet yi mu lëng leen mu ne peese leen ko téeméer ñu peese ko téeméer mu lëng leen peese leen ko junne ñu peese ko junne mu lëng leen jibril ne bu ñu ko peese woon ak xeet yi yëpp mu lëng leen de te booba ñaari at laa magum ak ñaari weer de sallallahu alayhi wa sallam naa ko def xale yi dal di ñibbi si ne alimatu ay tudd dàq nañu ñun raw nañ waaye suñ mbokkam Quraysh ma de moom tulie jàpp nañ ko rey nañ ko de alimatu sadiya daal di jógaan ak jëkkatam di ko wut ba taseeg moom ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ñitti rek ñu gis kanam gi daal waaw ñu ngi tikk daal am ngi am xalaat de ñu ne ko lu la daal mu ne dara loo gis mu ne dara ñu laaj laaj mu ne dara naa ko def alimatu ne jëkkatam xale bii rab yi lañ ko bëgg a jàpp de kii jinne def ko bëgg a jàpp naa ko delloo ay waajutam balaa ma ci aw toora fekk de daal di dellu si Makka ne ne Aminatu sa dooma ngoog namp rek lañu digaale woon namp gi jeex na delloo si naa la sa doom de mu ne ko ah doom ji nga xam ne yow bërki démb rek nangu laa tàggoog moom lu la xiir tey ji nga di ko delloo si tey mu ne ko nampal rek la nampal wéy na fabal sa doom mu ne ko da ma wax rek lu tax nga def loolu de mu ne ko sa doom ji dafay feeñal ay yëf yoo xam ne daal dama ragal ne jinne ko bëgg a de mu ne ko jinne nga ragal ci sama doom déedéet man sama doom jinne du ko jàpp naa ko def yaayam amee ko ba mu xamee ñeenti at yaayam itam dee sallallahu alayhi wa sallam yàlla bëggut kenn bokk ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku ko bokkoon ak moom rek ñu ne limaam ah, xëy na foofu la jógee de ba muy juddu juddu ci bés àjjuma ki gën ci bés yi te juddoon ci bés àjjuma sax àjjuma ne ñu ne lim juddu àjjuma tax juddu ci weeru koor ci gën ci weer yi boo ñu ne ay weeru koor wee tax juddu waaw lu may ci bés altine waaw ci weeru gàmmu wi ba muy juddoo fekk na baayam dee kon tey duñu wax ne baayam ko defal dara ba mu amee ñeenti at yaayam itam dee de kooku yaayam defalu ko dara ba bu yaayam dee hee Abdul Mutalib amee ko maamam ba mu amee juróom-ñeenti at Abdul Mutalib dee dénk ko Abi Talib baayam bu ndaw moo jur Seydina Ali ibn Abi Talib Abdul Mutalib mooy maam Yonent sallallahu alayhi wa moo jur Abdoulaye moo Abu Talib moo jur Haris moo jur Abbas ak Hamsatu ak Muqawim fukk doom yu góor la moom Abdul Mutalib ak Atikatu Safiyatu ñu di doomam yu jigéen Abdul Mutalib it yar ko bëgg ko waaye mooy ba ma juróom-ñeenti at mu dee mu dé mu dénk Abi Taalib ne ko sama doom ji nanga ma ko yaral borom njit mu màgg la de Abu Taalib na nga xam ko moom itam ba Abi Taalib di dem di terati saam te boobu yonent am na fukki at ak bëggoon na ko yóbbaale waaye ba mu génnee ak moom bañ a dëkk bañ njëkk a xendu rek naka la ñu àgg si ca dëkk ba benn labbe nga fa labbe ba daal leen invité añ ta musu ko def nee nañ ma invité gan ñi ci penc bi ñëpp nañ ñëw añ si ci man de ñu ne yonent bi yow ñu ngi ci bagage yi ñuy dem te ñëw yonent ba def ko sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw ah labbe bi seet leen ne waaw kenn desut ah ñu ne déedéet kenn desut mu ne am na ko def ñu ne déedéet kenn desut mu ne la budda am na ko def ñu ne ko daanaka kenn desut ndax suñu xaleel boo xam ne moo ñuy wattul suñuy bagage rek moom lañ fa bàyyi de mu ne xale booba kat mooy weeru mooy seen weeru badar de bu nekkul ci yéen rek leer du nekk ci yéen moo tax may witi leen dem leen wooyu ko de ñu wooyu yonent ba ne ñu ñëw sallallahu alayhi wa sallam ñu xañ ba noppi labbi ba ne ana ku ko ci gën a jege Abi Taalib ne man mu yaay baayam mu ne ko maay baayam mu ne ko di di gone baayam di dund bukk mu ne ko mu ne ko maay baay taxam de baayam bu ndaw baayam dafa dee mu ne waaw loolu mën a de mu ne ko wañeekul ak moom kii war da tukki mukk ndax yahut xeet gu bon lañ ñu xañaan lay te jàng nañ téere jëkk yi xam nañ li ne ci moom bu ko yahut yi gisee xam ne mooy yonent bi yàlla fa soo yónni duñ ca mën dara waaye danañ ko jéem a rey rek ndax bëgguñ kenn ku baax te bëggu ci bani Israël de foofu rek juróom benn yahut ne jalañ ak seeni gànnaay labbe bi gis leen leen na ñu ne ko yonent bi nga xam ne moo def ci yonent yi te xam ne xaram lay juddoo fii Makka bés ni tey dana wàcc ci dëkk bii de moom la ñuy seet rek bëgg fuñ ko gisee nañ ko rey de mu ne leen maa ngi leen di laaj su fekkee moom la yàlla fasoo yónni da ngeen ko mën a rey fanq li yàlla namm ñu ne ah déedéet mu ne su fekkee du moom la yàlla fasoo yónni nag su ngeen reyee doomu jaamur ndax soo ñu leen ñu ne ah kay mu ne leen ay dof ngeen waññeeku leen ñu daal di waññeeku mu ne abi taalib lii daal la doon wax de waññeeku na gone bii de moo tax yoon woowa dañoo waññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demu taam de sallallahu alayhi la mu xamee fukki at ñaar la waa Makka tabax Kaaba ga la dee la fekkee xilful fuloon xilful fuloon mooy Makka buñ gisaa doxandéem rek dañ koy tooñ na leen neexee rek suñu amee su amee suñ la neexee nangu ko waaw néewal ko doole daal mbooloo ci makka nag ci doomi tànneef ya booloo rek ne nañ def rek suñ mbooloo moo xam ne lu yàgg yàgg ku fi ku fi bëggatee néewal doole rek ñu faj ko mooy xil ful fulool yonent fekke na ko bokk na ca sallallahu alayhi wa sallam ba ma xamee ñaar fukki at ak juróom ba ma xamee ba ma xamee fukki at ak juróom ñaar la kaaba la Quraysh tabax kaaba gi ne ci jamonoom la bañ ko tabaxee nag ba ak si ci teg xajarul aswad ñu xëccoo ci xajarul aswad ñu ne xajarul aswad day kenn du féetewoo teg ko ci palaasam bi ndax ku ko teg ci palaasam bi rek tegu ci say naawle ba pencam yàlla kon nag duñ nangu genn gaño féetewoo ko de ñu xëccoo ci ay fani fan tabaxatuñ dabi jëmm bés nag ñu ne nañ daje ci lenn mbedd mbiree bunta bani saybata bi ku fi jëkk eh, jóge tey rek xàq ci ñun nañ ko xàtteloo rek te lu mu xàtte ñu ci ñun ñëpp ñu d'accord ci loolu yonent daal dina jarañ jaar fa de ñu daal di ko xoo fekk lamin lañ ko tuddee woon ñoom waa Makka ñoo ko tuddee woon lamin li jiitu ko ko yàlla yónni kuy xóolu ki lañ ko tuddee woon képp ko am looy dénkaane moom nga koy dénk ko am sa mbóot moom nga koy wax de waaw ñu ne tan loo yàlla tan loo nañ yàlla tanal nañu ki nga xam nag ne moom ñëpp da day na ñëpp de ñu ne yonent bi ñëwal yow teg ko de yow xeloo nga ko de yonent ne waaye man danaa def loo xam ne ñëpp danañ ci kontaan indi leen ma malaan ñu indi malaan mu lal malaan ma teg ca jarul a soot ne ñëpp nañ jàpp ci malaan mi waaw ñëpp jàpp ca rek waaw ba yëkkati ko ba tolloo ak jarul a soot mu teg ci ak loxoom bu tedd ba nag sallallahu alayhi wa sallam waaw tabax ko rek ba mu xamee ñaar fukki at ak juróom ci la dencee xadijatu bintu xooy ni jabaram de melaw dencam mooy toog na fii kër baayam baayam yu ndaw yi ak bàjjanam yëpp ne Muhammad nii mat naa am jabar de ñu ne waaye kër gi dara desu si léegi lu ko mën a nobaanale ji ñu ne ah na def ni moromam yi rek moromam yëp dañuy dem ca xadijatu mu jox leen am njaay rek ñu dem terati suñ dikkee rek lu ñu ko jëlee waaw moom na dem terati rek bu bu terati ba ñëw lu mu ca am rek ñu dal ko ci jabar rek ah ko def ñu ne ko demal ci mu jox la am njaay de fekk xadijatu moom mi ngi yéeg li ko jokkaleeg moom de ba yeneen fi ñëwee ne ko fekk na Xadijatu dafa géyantoon ba muy jànq weer yi daanu ci néegam daanu ci luppam mu laaj ko xam-xam yi ñu ne ko weer woowu mooy yonent bi di ki ji mu jël jamono mooy ko sa jëkkër de mu bàyyi xelam ci moo taxoon ba mu déggee mbiri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu naa gineew abi taalib ñu nangam nangam mu yónni ñu ko seetal de ñu ñëw ne ko waajale day ragal yàlla ak dëddu àddina ak bëri kersa daal moo di moo ay jikkoom de kooku far ñëw ne ko dama bëgg nga jox ma njaay ma jaayali la de mu daal di ko jox njaay daal ko boole jaamam bu ñu wax may saratu may saratu mënoon naa bind ne ko xandal maa ngi moom dee ko liggéeyal benn coono te lépp loo gis ci moom nag na nga ma ko bind de may saratu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jëm ñu ngay traité de joasa ba nga xamee ne xëy nañ di dox di dox di dox ba digg ba cëg gis nga réew yi jaas ñun ñàkkee ker garab boo ko gisee balaa ngaa gisati garab ndox lu bari ñu ak diggante garab ak ndajantaan nag bu def car mbooloo ma jiitu ko fa nag ca car ga ba mu daj yonent soog a agsi fut fut ñu xajal ko kenn xajalu ko rek moom mu dem toog ca naajoo car ga ne ñorade leen fa ñoo fekk si yonent ba sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog de ah may saratu dal di bind loolu xadijatu de ba nga xamee ne àgg nañ waaw ca dëkk bañ jëm fekk fa labb bu ñuy wax bayraa yonent toog ci sol ron as ngarab bay raane ngarab fale day Iisaa ibnu Maryam waaw waxoon na ne kenn du fa toog waaw lu may ko yàlla yónni de ba mu Iisaa génne àddina ba tey nit toogu ci ron garab gale boo nag kale fa toog na ngeen xam ne yonentam yàlla la de loolu itam may saratu bind ko Xadijatu de yonent saratam boobu am na ci ñaar weer ak ñaar fukki guddi rek mu juróom-ñett fukki guddi seretam mat mu daal di ñibbi si marchandise moom jaay am yarte lool lu mu jaay rek jibril delluwaat marchandise ma nan na doon kere ba muy génne màkka de de kere ba muy ñibbi marchandise ma nañ ko ko joxe woon noonu la ko delloosee ak rosetam de a ñëw jébbal xadijatu dem toog toog lu yàgg mbokkam yi ne ko demal ci xadijatu mu fay la mu ñëw ku bari kersa la moom yonente bi si rut ko ko wax wañeeku ci yàlla sama del si taxawoon ko gannaaw ne ko man de sama mbokk yi dañ ne nga fay ma ah mu ne ko moo looy defee pay gi mu ne dañ ne dañ maa bëgg a wutal jabar mu ne ko waaw cere si benn yoon rek lañ cee xamee ñun mën na caa sant kër ah mu ne ko ñoom de loolu lañ wax ne ko man day gis naa jigéen joo xam ne rafet na lool te a na alal lool te ku ab juddu la ci Quraysh te ah mag la nag ci at waaye kooku daal boo ko bëggee man danaa la ko doxal te dina la yomb de xam ma dem wax loolu samay mbokk ñoo leen Xadija wax ne am na jigéen ju mag yoo xam ne su ma ko bëggee rek mën na ma ko doxal de ñu ne Xadija mbaa daal lam ju bëri jee tax mu yàpp ñu doom ji di ko waxal naa ja ñu utal la jabari màggat dal di ñëw àkk si ko mu ne déedéet du loolu de man tey sama bopp laa koy gaaral su bëggee rek man danaa sëy ak moom de bani Haasim nag naka jekk dañuy ngéeju denc ku bokk ci bani maxsoom ki nga xam ne ci la xadijatu bokk rek góori bani yaasin dañuy ngéeju xam jabar ju bokk ci bani maxsoom ki nga xam ne ci la xadijatu bokk rek ba xadijatu ne moom yonent la bëgg a sëyat rek mbokk yonent ñoom amul amul werante ñoom ñëpp ñu ne ñoom d'accord nañ de waaye xadijatu moom bàyyam bañ booba bàyyam a ngi ci ndof ne lu yàgg-yàgg moom du may Muhammad moom nga xam ne amul tuut waaw du ko may doomam rek xadijatu booba sàngara xaraamagut Xadijatu nandal ko sàngara ba mu di mu ne ko Muhammad ibn Abdullah daf ma daf ma bëgg loo ci wax mu ne ko may naa la ko mu ne ko bindal ci kayit jox ma signé mu bind ci kayit signé jox Xadijatu mu denc daal di ne yónnee ci kër yonent sallallahu alayhi wa ne ñaan kat yi nañ ñëw ñaan kat yi ñëw fekk muhuri ñu ne ko dañoo ñëw pour takk si Xadijatu ñaar Muhammad mu ne mukk du ma ko may Xadijatu wan ko mbind mi ne ko lii yaa ko bind signé ko soo waxee lu mu utee rek dañuy wax ne dof nga def ah mu ne bon nag ànd naa ñu dal di ko may Abdou Abou Talib bàyyam bu ndaw ak Sidina Aboubacar si biir ñoo ñoo doxe woon ngoro ga de Aboubacar yàlla yàgg na ko boole ci lu baax ñu dal di takk nag Xadijatu takkal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent sane ko fukki dollar ak ñaar ak ñaar fukki te ngi jëlem de <clears throat> moom la ñàkkam nga ñu mën a ca jàpp ko def nag dal di Xadijatu dal di xoote nag invité waa Makka yëpp rey jëlem yi togg ay ñam xodd jëméeram yëpp di leen tëggaloo ay ndënd di leen feccloo waaw ñi fecc wër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lii xaay na mu ne ñii dee xaayit fecc dee xaay na waaye seen ñii dee moom dara nekk ci moo tax ba tey xocci xocci ak ceet looloo ko tax dagan ak tëgg ci ndënd de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag daal di nekk xadijatu nag xadijatu booba am na ñeneen fukki at yonent am ñaar fukki at ak juróom jabar ji màggee na jëkkër ji fukki at ak juróom te baaxab Quraysh mooy su xasee am ñeent fukki at rek dootuñu am doom de jigéen sax xaaliban su xasee am ñeent fukki at rek juróom néew na mu amati doom de na ko def waaye moom yàlla xar na ci baax jut naag moom Zeynabu mooy seen taaw bu jigéen jut naag moom Ruqayatu ak Ummu Kulsoom ak Fatumatu mooy caat na te mooy seen sang ñoom ñëpp jut naag moom itam Xaasim ak Abdoulaye de Qasim ak Abdoulaye Abdoulaye moom la ñuy wax Taayir moom la ñuy wax itam Tayib dañ koy wax Tayib di ko wax Taayir moo tax ku géeju ci seer da ngay jël Tayib ak Taayir def ko muy ñaari doom mooy ñenn ñi téere yi wax na yonent am na juróom-ñetti doom fekk yonent juróom-ñaari doom rek la am ñeneen ci doom yi jigéen laam am ak ñetti doom yu góor rek ñaar yu góor yi Xadijatoo leen jur benn ba leen ñetteel nag mooy Ibrahima mi nga xam ne. mariyatu xëttiyatu saaraam bi jóge woon misra waaw moo ko judde kooku ci ñun la bokk moom ci afrique la ba école mariyatu xëttiya yi moo judd ibrahim doomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaari doom la am xaasim ak abdoulaye abdoulaye mooy tay mooy tayer ak ibrahim doomi mariyatu de ak ñeneen doomi jigéen zeynabu ak ruqayatu ak ummu kulsum ak fatimatu de Zeynabu ba mu màggee yonentam ko may jëkkatam Abul Haasi Abul Haasi fay bot ya nga xam ne moom la gàddu woon delloo xaq jaamur ya ma woon yëpp ñëw nag fekk si yonent jébbalu de mais biñ koy wax ne na jébbalu mu bañ itam booba jébbaloon ci xolam waaye mi ngi amee xaq jaamur ak i bot ak xaral yi ñu ko dénkoon su jébbaloon ko noonu rek dañuy wax ne dafa xuruj delloo na xaq jaamur yëpp ba baatam set waaw mu del si nag léegi ba mu jébbaloo yonent delloo aat ko Seynabu de ñu ne ci beneen tas tas ñu ne ñu ne delloo na ko noonu rek de mooy jëmmi sariya lu mu def rek sariya la xaw ma fasaat nag xaw ma fasaatut waaye daal delloo aat na ko sëy ba moom xalaal na ba loolu amee nag Seynabu moomu moo jub nga xam ne moom la yonent togg kera fatu Makka waaw caal baaw ba muy dugg Makka de moo jur bu jigéen bi nga xam ne gannaaw bu lay Fatima duggee ne àddina moom la Seydina ci nekk tantam de sallallahu alayhi wa sallam ruqayatu ñu may ko sayyidina Usman ibn Affan amul ak moom doom génn na àddina cara bañ cara xare badar bañ ñi fi jóge badar rek waaw booba dañuy suuri ruqayatu doomu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam rek fekk na ruqayatu yonentu mayoon na ko Utbatu Ummu Kulsum may ko Utaybatu ñaari doomi Abi Lahab Abi Lahab nag ne ñaari doomam duma sama kanam xaraam na seen kanam lu mooy ngeen dem fase doomi yonent bi ngeen denc te xas yonent bi te tafli ko ci kanam xotti mbubbam def loolu laa boole ab sant ay doomam ñu dellu si ñoom ñëpp mat ba tooma tay batu kii fase roqayatu kii fase umu kulsoom def xas yonent bi murtat xotti malaanam naka ko def yonent ne yàlla na newat batu yàlla na yàlla xiir ci yow وعليكم من كل خلق سلام كيف خلق إلا طول الليالي وعليكم من كل خلق سلام كيف خلق إلا طول الليالي صلى الله عليه وسلم